yori mbiram di ko defar moo tax xamee su demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom bar sàkk ne xiim ñu ngi lay ziar bu baax Mbàkke dañ fay ñëwoon ci sëriñ Ahmadul Maxtar ci su màggal gu mag gi xam na yàgg na ko defal Cheikh Moustapha waaye tey dafa tollook téeméeri at yi ci hijrée bi mu bëggoon nag beneen cachet bu am bu rëy rëy moo taxoon mu ne njabootu sëriñ Tuubaa gaa moom ñoo koy ñoo ko daa jiite waa dara xulul wànde bi yoon daa fa bëgg wane ne lépp lii yëpp sëriñ Tuubaa la te looy defal sëriñ Tuubaa rek njëgu njabootu sëriñ Tuubaa gépp ko war a bokk def loo tax ñu ne mën na woon nag nañ jëm ci kër yëpp waxtaan ñoom ñu ñaanal nu digal nu loolu rek mooy mooy solo si tax ñu ànd nañu ñëpp di di di di di wër. bi sallallahu alayhi wax ji mu waxoon ne ñu ñaan suñu boroom ci boppu téeméeri at bu nekk mu yónni koo xam ne dana man a yeesal diine ji sëñ bi nag dund gu barkeel gu tey gi mu dund ci àdduna ba am ngërëmul suñ boroom ak ngërëmul yonent bi mu doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam dëkkam bii di di dëkk boo xam ne da ko yàgg bëgg yàgg koo xemem te suñ borom natt ko ci ba dëkk fi lu bari juróom-ñaari rek la fi dëkk sëñ bi laata nu ko nettali euh, fu ne yóbbu nañ ko fa waaye fu ñu ko mës yóbbu itam xelam mës ta jóg ci dëkk bi ba daana lu mu daan wax sax ba tudd dëkk bi day delloo dëkk bi ci boppam ci moom ilaahi ilaa tuubaaya xut ni wasalliman wajut bimtinaanin sàmm wal tumini tirba yasir rujuwaay li tuuba wax mi ni waxi ni adal wara wal tutib li sama iskaana yooyu yëpp sëñ bi day firnde rek ne bëgg na dëkk bi waaye suñ borom nat na ko ci bim fi jóge nag mu denkaane woon te loolu ñëpp xam nañ ne sëñ fii la bëggoon a dëkk euh, mu dénkoon Cheikh Mamadou Moustapha ak njaboot gi ngir mu ñu indi ko Touba am lum mu ci diggee itam ci su ñëwee Touba te xat demut lépp luñ ñu songati lu ne danañ ko man waaye suñ suñu jaafiw seen ba loolu amut moom du yàq dara ci liggéeyam waaye ñoom nag seenu liggéey dina am gàllankoor sëñ moo du taxaw ca taxawaay bu rafet ànd ak njaboot gépp ba indi ko Touba bi ko indee nag. booba ak léegi day téeméeri at yi day ñëw ci ndax ama wam sa wam wam la woon te ñu ngi jëm ci ama wam ta sin mu junni at ak ñetti téeméeri ñeent fukk ak juróom-benn euh, muharram bii nag mooy tombee ak junni at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn loolu di téeméeri at sëriñ bi nag liggéey boobu mu liggéey ni ñu ko waxee léegi dara xéebuwu ca lépp mat na defar njaboot gi defar ñi aju woon ci ñoom ñëpp ñi ci ci aju ñi aju woon ci moom ñëpp ba kenn ku nekk di làmp bu mën a leeral nu bëgg a wane nag ci ndigalu sëñ Ahmadou ak ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha maanaam euh, téeméeri at yooyu njaboot gi mu fi bàyyi woon ne du ñu diggante bi fi sëñ bi jógee ba ba léegi téeméeri at yooyu lii la fi murid liggéey li dale sëñ Moudou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdoul Khadir euh, sëriñ Saliou sëriñ euh, Cheikh Mouhamadul Amin sëñ Siri Maxtaar ba ci sëñ Muntaxa mi fi ne ak njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp loolu nag ci fànn yu bari ndax sëñ bi dafa wax ne loolu du xaj ci bisu màggal gi rek kon nag nañ ko tàmbalee ji Masalik ca Ndakaaru fukki fan ak ñett ci weeru tubaab yi di ñëw def samedi ñu ubbee ko fa ci suba gi ngoon gi itam ñu def ay waxtaan yu yu yu yaatu yu wuute ci fànnu xam-xam taxawaayu njabootu sëñ bi ci xam-xam maanaam mu njàngalim alxuraan ak njàngalim diine loolu tànn nañ borom xam-xam yu koy waxtaane ci yoon wi tànn itam waxtaane itam ci yarub roox maanaam muy tarbiya roox ya muy daaree tarbiya yi nga xam ne njabootu sëñ bi dañ ko taxawal ci biir réew mi yépp ba foofu dem gis fa ñoo xam ne dañuy wut yàlla ñu defare leen fa te ñooñu itam ñoo génn rek defarewaat loolu itam ñu waxtaan ci waaye waxtaan li nga xam ne moo jëm ci euh, njàngalem euh, maanaam sëñ bi ci ci ci ci njàngale mu yees mi maanaam lu demee ne ba ci liggéeyu sëñ Muntaxa bi mu université bi ak école yu mel ni Seex mu mu mu Murtala taxawal ak njaboot gi yëpp daal école yi nga xam ne dafa dafa dafa jëm ci njàng mu mu bees mi nga xam ne dootuma jaay si waaye meneen njàng waaye lépp benn la loolu itam ñu waxtaan téeméeri at yi li ci yoon wi def ci xilaafa yi fi jaar yëpp ak doomi sëñ Tuubaa yeeg fu ñu mën a ne ak njaboot gi waaye waxtaanee itam ci wàllu économie. maanaam yoon wi bi fi sëñ bi jógee ba léegi li ñu liggéey ci wàllu économie moo xam ci biir réew mi wala bitim réew loolu itam tànn nañ ay borom xam-xam yu ko war a waxtaanee waaye waxtaan itam ci wàllu environnement dëkkuwaay lépp li ci yoon wi def téeméeri at yi lépp rek li ñu ci jublu mooy wane ne sëñ bi kat liggéey na waaye bàyyi na fi ñoo xam ne itam lim leen bàyyee jël nañ ko donte sax nag am na yu des waaye lu ci nekk danañ wane euh, ya gën a fés ci yi nga xam ne ni moom la ci njaboot gi def. loolu mooy mooy Massalik bu ñu jógee Massalik it le treize la quinze Louga la ñuy dem Louga nag lañ fay waxtaanee mooy sonn gi waa Kër Sëñ Tuubaa doon sonn ci téeméeri at yi ci benn la jullit ñi ñu nekk benn di fabandoo di tegandoo loolu ci xilaafa yi fi jaar yépp loolu danañ ci danañ ci def ay waxtaan suñ jógee Louga yi itam dañuy ñëw njaareem ci ñaar fukki fan ci weer wi ñu jëm muy mois de juillet njaareem nag lañ fi bëgg a waxtaanee mooy xutbatu wam sasin ndax sëñ bi bu nekkee njaareem ba di fa jóge ba bi mu fa daataan jógee am na xutba boo xam ne moom la mujj génn wax ci mbooloo xutba boobu nag dafa làmboo ay solo yu bare bare bare yu mat a jàngat loolu des na ko fa waxtaanee waaye des na fa waxtaanee it fukki at ak yi sëñ bi def njaareem loolu incha allah des na ko fa euh, waxtaanee itam ak ñëwam ndax niñ ko xamee ñëw gi ay wax daane ci jib yu jóg yu jóge feneen ci ñëw sëñ bi Touba loola nag kon boroom xam-xam yoon wi danañ ci leeral ñëw gi ni mu demee loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg na waaye nag li ñu tënk ci euh, la ñu def ndakaaru ak lañu def Louga ak lañ def euh, njaareem lépp danañ ko danañ danañ fexe ba bu ñu ñëwee bu ñu màggalee màggalu Daaru Xudus maanaam màggal màggal gi ba ba ci suba sa cérémonie religieuse boo xam ne danañ ci tënk-tënk yooyu fas nañu cee génne itam ab journal boo xam ne day tënk rek mbooleem jëf yooyu nga xam ne euh, ak njabootam ay xalifaam ak njabootam ak fu ñu mën a ne ba ca bitim réew ci wàllu njàngale daal kër sëñ Tuubaa yaag yëpp luñ ca mën a tënk danañ ko tënk loolu lépp nag liñ ci jub jublu rek mooy wone sëriñ bi ak wane ak njabootam nekkat dëgg la am na lu leen bàyyil am na lu jë lu ba lu rëy lu mu jëf waaye bàyyi na leen loo xam ne ñoom kenn ku nekk taxaw nga ca sa kéemtalaay kàttan loolu daal tënk mooy li li sëriñ bi waxoon ne bu ñëwee nañ leen ko jot li sàkku ci seen i ñaan waaye déglu ci tam seen i xalaat ndax dafa wax ne ñoom kenn ku nekk ci yéen am na xalaat ci loolu war naa am xalaat ci loolu ak nu mu ñoo xam ne jàpp na ne suñ kon a defee dana gën a rafet dana gën a mat maa ngi nuyu sama bokki bopp yi teew ak bokki taalib yi di yóbbante siyaare ak nuyoo ci sunu kilifa yooyu ngeen tudd yëpp di xam leen nag mbir mi moom dëgg la sëriñ Tuubaa moom wax ci moom yomb na yombul Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni itam euh, bis bi ñuy waajal mooy ki ko tàmbali woon ànd bokkam yépp ànd koog taalib yëpp ànd jullit ñëpp moom it di ko xam ne wax ci moom yomb na yombul ndaxte eh, loo wax rek bàyyi nga lu kopp kon nag xam naa ni ñu ma ci jiitu tey samay kilifa te mag ñu ci bokk gi mag ñu ci yoon wi lu ñu wax ci loo xam ne doyale naa jàpp wante rek ñu xam ne euh, sëriñ Modou Moustapha bi muy def lii tam wane yoo wan wan wan rek njaboot gi aw yoon ndax ñoom dañoo dund ak sëriñ bi fu ko waaye di fekk rek fekk nañ ko fa dem nañ ba gànnaar fekk ko fa te mooy li nga xam ne moom la ñëpp di demoo sama maam demoon na gànnaar moom bokk na ci ñi mën a wax loolu moom sëriñ Falilou seeni yàlla def nañu mu fekk leen fi fekk yoon nañ sëñ bi gànnaar nekk moom jolof ba nim nikkee njaareem tënku ci ndigal ba ci dëkk yiñ sañ ci yëpp ci ndigalam lañ ko defee kon nag euh, mbir la moo xam ne ñun ñëpp dañoo judd rek fekk ko fi muy loo xam ne njabootu sëriñ Touba gépp ànd di ko def te ku ne xam ne sëriñ Touba ak Touba loolu yi ngay wax foo koy wax da koy askan sama dëkk ba ñuy wax Touba maa ngi fàttaliku suñu ébi bu mbàkki bis mu moo koy wax naan am nay jamono de boobu laay tàmbali sama daara ji mën a ndax yàlla ngeen bokk ci ñi sëriñ bi doon wax am na ku mas di waxal naan ko sama jamono ngi dikk joo xam ne ku yenooti say tabarte di wë di wërib jàngu baagee ci sama dëkk ba ñuy waxtu waa fa nga koy sippi yaakaar naa loolu fi ñu toll nii waaw boo ko xoolee keroog bi ñu ñi njëkkoon génne ci école ndam bi ci université bi mhm. ambassadeur u Palestine bi loolu wax mhm. dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne utlubul ilma walaw fi siin mhm. waaye léegi kon mënees na wax ne utlubul utlubul ilma Touba <laughs> waaw kon loolu dafa mel ne jub na waaye mboolem lu mu ñaanoon rek ñi ngi ci teg bët waaye nag ñaan yi boo lépp mi ngi aju ci boo xoolee rek Eh, junj yi amoon na ci ba muy digle jumaa ji wax sëñ Moodu Musaa sëñ Fàllu mag ñooñu fi nekkoon ne leen lu ngeen ci man def leen ko ñaan naa ko yàlla ba may ma ko kenn mënu koo teem kon nag li ngeen man lépp def bu ngeen ko deful nag yàlla dañ fa wàcc mbindeef yu ko def nag ñoom lu sëñ bi bëgg rek loolaa di seen tax na nag tuwatkal la ku xam ne ne ay jafe-jafe bari woon na lool ndax eh, gàllankoor yi tubaab yi doon def yëpp lu ci ne euh, xam gu Seex Muhammadul Moustapha xam Sëriñ Tuubaa ak nag pas-pasam ci moom xam na ne lum digle rek dont ci jamono jañ koy wax kenn mënu ko it wóor na ko ne lum digle lu manees lay doon te moom it lu koy mayee lu ne jaral nag ko loolaa tax sas yañ ko ci sas yëpp andim raay beeg doog a tàmbali liggéey xam nga ne andi raay bi Tuubaa rek ab liggéey la woon waaye nag nga wëlbatiku nag doo ko tàmbali nag liggéey bi nga xam ne moo la tax a jóg te teewul ki ki nga ko fi indil moo ne la nag lépp loo ci xam ni sëfal nañ la koy boo dikkee da ngay fay boo ci duggee da ngay paas waaw kon loolu lépp waaye sëriñ bi jaral na ko waaye li sëriñ Tuubaa defit jar na ko ba tax na nag kon bis bi moom mooy mooy fàttali boppam xam naa li ci yees nii nag muy ñu dugg téeméeri téeméeri lu at ci bi sëriñ bi dallu say fii ci dëkk bi ku ne xam ne loolu rek masjid bëggam waaye yàlla rek natt ko ci ci ay nattoom la bokk ndax daf ne gimiñ da ko cee dugg am na ñu koy nettali gimiñ di kenn du ci mucc bu kenn doon mucc ma mucc ci waaye mucc ma ci wax sama dëkk ba ñuy waxtu baa baa ko sañcee ñaan fa yàlla la mu bëgg ba may ma lépp laa fa noppee toog loolu moom xam nga metti na <laughs> dëkk boo xam ne nee nañ la feeg yaa ngi fi dara lu ñu looy si du la fekk loo bëgg dana la fi fekk waaye nag ñun la am nga loo bëgg boo génnu dëkk bi doo ca doo ci loolaa ko tax a génn boole koog nag noonu yoo xam ne ñoom it ngay jëfandiku ci moom waxtu rek ba tax na ñoo ko gàllankoor it mu mayuñu ko benn yoon mu ñëw Tuubaa mayuñu ko it mu aji mag lu ci ne jéem na ko waaye sottiwul waaye tubaarkàlla fekk na moom yàlla fàggul ko ñoo xam ne ñoo ko wutu ki nekk ci bopp bi di Cheikh Mouhamadou Moustapha rakkam yëpp ak taalibe yëpp nekk ci ginnaawam mooy yàlla mayoon ko gis-gis bu rafet xel mu rafet moo xam ne buñ tegee fële wilaaya ga loola rek mën naa sottal lépp bu tax na nag euh, kon lii moom kuñ ci woo ku ne da sant kële ci woo ndax nag jàpp naa ne benn taalibe bu ci génne boppam du am ndax kenn kenn ko kenn ku nangoo génn ci sëñ bi amut ku ci bokk ko ne nag lii ci nga bokk bu ñu àggee ci bis bi ah tubaarkàlla waa jaadu na kenn ku ci ne feddliwaat sag laxasaay ndax nag lu ñuy fàttaliku lu ne sëñ Modou Moussa ba muy wax ñuy fàttaliku bis bi bëgg ñu delloowaat ci ndigali sëriñ bi bàyyi ay teram ndax sëriñ Touba Seex Mouhamadul Basir maa ngi koy nettali bi démb am na naarub gànnaar bu ko mas di laaj naan kon ndax mën nga maa seex nu meloon ñoom noonu tur woowu lañ di wax seex la ñuy faral di wax mu ni ko ni meloon mënuma la ko wax waaye mën naa la cee wax di leen di mën naa la ko cee wax képp koo mën a doon boo ko nee jàkk xam ne lëfa ngi ci moom lu nekkul ci yow loolu daal mën naa la ko ci wax <laughs> loolu nag jaaxal nay wax kon nag noo ngi sant bu baax mbokk yi ndax xam naa ni ñoom ñëpp xam naa leen tubaarkàlla kenn par kenn seenu bëgg génnul li ñu xam ne moom la seeni waajur bëggoon seeni maam bëggoon ko ba tax na ñoom lépp damaa am kenn ku ci ne ak yow kóllëre goo xam ne yàlla rek a tax ak sëriñ ko ak ñi nga xam ne moo leen ñoo leen boole ci sëriñ bi ak man it ki ma boole ci sëriñ bi loolu euh, lu dëgër la lépp mënees ko faa toog di ko fi wax waaye kon fii moom kenn ci ñoom bu dikkoon it lu ma wax nga xam naa ni kenn ci ñoom du ma wax lu génn bëgg sëñ kon mën naa wax ni lu ma wax rek ma def ko waaw ndax loolu rek may wax waaw maa ngi leen di sant bu baat leen gërëm sas wi leen kilifa gi eh, sas ci liggéey bi yàlla leen ci yàlla defal ndam ndam li nag mbégum ñëpp yàlla nañ ko fekkee jàmm te yàgg koo fekkee loolu yàgg ko dundal jaa jëf lam yanxuni daraw naari dunya waqtasani albaaxi bi xayri sunya malakani maa lam yabbiu anni waxaadali baqaawo bilmanni karaamati kitaabu man rafaani bi ilal jinaani musnafaani karaamati كتاب من رفعني بلا الجنان مصنفا عني محا مماتا خنها نفوسا ولسوايا ساقوتا فيسا demam nga ump na mindéef te um na boppam kuy ku dul malaaka ya ko wuuf ak wax yonen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sax ne